noppi na ngir daal di taxaw jàppale bu baax a baax ki nga xamante ne mooy Bassirou Diomaye Faye ak nguuram nguur gi ak secteur privé bi mel ni kon ñu fas yéene lëkkaloo ngir Sénégal gën a ñoŋ li war a tax nag ba yëf yi gën a ñoŋ Vox Populi di ñu xamal ni mooy engagement bi nga xamante ne ñaari pàcc yépp muy njiitu réew mi ak secteur privé bi daal nañ koy jël ay xeetu proposition yi ñuy xaar yi nga xamante ne war nañ ko jébal premier ministre Ousmane Sonko waaye tamit ab ndaje conseil interministériel laata conseil présidentiel di am 24 heures di ñu xamal ni secteur privé bi ci boppam moom bokk na ci li nga xamante ne jël na ko ni engagement mooy gunge état bu Sénégal ci li nga xamante ne moom mooy xëyub ndaw ñi waaye wàññi tamit lii di njëgu dund gi naka secteur privé organisation syndicale yi tamit daal dinañuy jël ay engagement ci kanamu njiitu réew mi ma Sall Mademba Sock mi doon addu ci seen tur gannaaw audience bi ne lu ñu sekkoon ak njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre am bokk na ci waxtaan yi nga xamante ne yu dëggu la moo tax moom Sock xam le ni dañu wëy di taxaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéeykat yi ndaje njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay sekk na ko démb ak secteur privé naka noone ñii di syndicaliste yi mooy wane ni kon moom ci boppam dafa bëgg xam li xew maanaam jël température bi enquête quotidien moo ni jàngatee Sud Quotidien mel ni ku koy feelu di xam ne ni kon ndaje yi nga xamante ne moom njiitu réew mi sekkoon na ko ak secteur privé bi waaye tamit monde syndical bi lépp aju ci wàññu dund gi waaye tamit xëyub ndaw ñi mooy wane ni moom Bassirou Diomaye fay mu ngay wut pexe yi gën li gën ci njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye l'évidence yéen kaay mii di kat ci yi nga xam xamante ñoo tukkee ci ndaje bi di xam ne ni bokk na ci préférence nationale wàññi njëgu dund gi waaye tamit entreprise locale yi daal di leen taxawu loolu moo nekkoon li fës ci waxtaan wi moo tax sax l'info yéenekaay jàpp ni li yépp bokk na ci li ko waral mooy apaiser li ñu duppee climat social bi ngir climat social bu dal L'As Quotidien fësal na plan njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye nekkoon gannaaw ndaje bi mu sekkoon ni ki démb ak secteur privé bi waaye tamit syndicaliste yi lu ñuy mbëbët mooy daal di samp de concertation jëmale ko ci li nga xamante njëgu dund gi nu ñuy def ba wàññi TVA yi jëmale ko ci li nga xamante ne moom mooy denrée première nécessité yi wàllub courant bi ak yeneen i ponk naka noone wàllub courant bi te loolu yëpp junj nañ ko ci waxtaan wi démb Bassirou Diomaye Faye dina wéy ci ay waxtaan ndax gannaaw secteur privé bi monde syndical bi lu ko jiitu sax commission européenne Le Quotidien yéenekaay du ñu xamal ni FMI tamit dina yegsi ci ndakaaru niki ëllëg Le Quotidien yéenekaay du ñu xamal ni FMI tamit ñu ngi koy xaar a xamal délégation kuréel gi dina yegsi ni ki ëllëg ci ndakaaru ngir mën a sekk waxtaan ak njiitu réew mu yees mi naka noone premier ministre am di Ousmane Sonko ci ay orientation politique économique bu Sénégal ñi war a orienté kay seen taxawaay mooy député yu Benno Bokk Yaakaar yi ci bataaxal gannaaw ab ndaje ni ki démb réew mi quotidien daan nañuy xam le ni kon taxaw nañu tembe ngir fas yéene def li nga xamante ne moom la ñuy xaar ci ñoom bis bi la jour di xam ne ni kon Benno ci boppam moom moo tàmbale échauffé wu laata bi nga xamante ne moo koy xaar ci assemblée nationale yéenekaay bi di xam ne ni Abdou Mbow ak i ñooñam kon tàmbale nañu nas pexe nee ñu kon ngir layal askan wi wala bokk ngir taxawu intérêt wu askan wi ñi nekkoon député wàccu ko dem nekki ministre ñooñee bu yóbboo ñu xooli leneen lu ñu def waaye mu ñu ñoo dellu assemblée nationale les échos yéenekaay moo jox kàddu gi ñi nga xamante ne seen xam-xam na ci wàll wi ñu ciy indi ay leerlu Alioune Souaré ci biir yéenekaay bi lu muy xam ne ni kon mooy amul benn loi buy wax ni kii ñàkkoon poste député am ngir nekk ministre mën naa dellu jëlaat ko kii nekkoon njiitu réew mu Sénégal di Macky Sénégal la tribune yéene kaay dañu xamal ni kon sekk na ab ndaje bu kenn yëgul ak njiitu réew mu France di Emmanuel Macron ñu daal di waxtaane njiitu réew mu bees bu Sénégal bi di Bassirou Diomaye Faye jàngat nañuy tamit la ji gi nga xamante ne benn Bokk Yaakaar daf na ko diggante moom Macky Sall ak Amadou Ba te ñagas lool ba sax limitation ñaari mandat yi nga xamante ne moom njiitu réew mu Sénégal ba woon Macky Sall yàgg na ko ŋàññ ay fonctionnaire ñooy ŋàññ ci biir enquête li ñu ñàkk gis décret de répartition des services mu nekk li nga xamante ne kumpa la ba boppam xamle woon nañ kon daal dinañ koy xaatim ba noppi libération moom dikk na tey ci wàllub délinquance fiscale bi ñu jàpp ni kon amoon na ci projet GTA suñu naataango di xam ne ni kon atekat bi ci boppam mel na ni ku gàntal Eiffage génie civil marine ndax li mu doon sàkku muy redressement bu ëpp milliards ci suñu koppar daal dinañ koy maintenir yéenekaay bi dikkaat na tamit ci ARCOP mi nga xamante ne mu ngay lëmbëj contrat affermage bi nga xamante quotidien dikk na ci enjeu jongante boobu nga xamante ne ñu ngi ciy xaaraat bu baax a baax kii di Idrissa Gana Gueye keneen ku ñuy xaar ca France muy Crépin Diatta mi nga xamante ne tey ji bu amee ndam mën na jege placeu qualification Ligue des champions Marseille tamit tey ji stade yéenekaay du ñu xamal ni war naa mën a fippu ci jongante bu koy xaar digganteem ak Nissa jërë ngeen jëf Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen revue